ko di ko masawu coono ñu ngi nuyu Seydi Cheikh Ahmed di ko dalal di ko sargal di ko masawu coono ñuy nuyu suñu bàjjan suñu yaay soxna Fatima si di ko dalal di ko ziyaar di ko masawu coono ñu ngi nuyu suñu yaay suñu yaayu daara di ko dalal di ko masawu coono te di ko sargal ñuy nuyu suñu yaay suñu bàjjan soxna Haja di ko dalal di ko ziyaar te di ko masaw coono. ñu ngi nuyu soxna docteur Maimouna Sow di ko dalal di ko masaw coono te di ko sargal. ñuy nuyu suñu tata tata Ndey Kumba Jeen di ko dalal li ñuy wax loin des yeux mais près du cœur. ñu ngi nuyu Serigne Moustapha Diagne borom këru soxna Fatima si di ko dalal di ko sargal di ko masawu coono waaye Demba ñuy nuyu ñi taaral bés bi ci wet gi ci wet gi ak ci wet gële di leen nuyu yéen tamit ak ñi ngeen sañsee sañse yu taaru te yandi yi du waxoon nañ ci dernière affiche bi ne na sañse yi taaru jigéen ñi sol ay talon góor yi nañu costume bu ñuy wala wala fee ñu jël pour taaral bés bi ndax ki ñuy sargal kenn dàq ko sañse ci àdduna bi dëgg la wala dañ ma mës a wax ne ma noo gisee photo bi ma ne ko sëriñ Moustapha Sy rafetaay du ko sàcc daw ak moom bu ngeen ko soxlaa dem leen wëri ko ci rafetaay moo nga fa toog ñuy nuyu di ziyaar soxna Umu Si di ko dalal di ko masawu coono ñu ngi nuyu Cheikh Alhaji Omar borom këru soxna Umu Si di ko dalal di ko masawu coono te di ko sargal kon nag ñu boolewaat nuyoo yépp ginnaaw ganaar ak i nenam borom ganaara moom ñu delloowaat nuyoo yëpp suñu sang bi ci malik di ko ziyaar di ko baal diko ma di ko mu mel ni Khalil lañu bëgg a dalal ci benn son bu ama am solo Khalil quel homme quel homme ce Serigne Moustapha Sy né d'une noblesse incommensurable ici à Tivaouane quelle chance pour ce beau cadre. Cette université de Tiwawan de recevoir un homme de cette ampleur. Quelle euh, chance, Astou. Demba, cet homme qui est né de noblesse, cet homme qui est né d'une grande famille. li ñuy wax Cheikh Seydou Mouhamadul Moustapha Sy ñeewul benn euh, këru yax bu rëy niñ koy waxee ndax kër maamam maam El Hadji Malick bi nga xamante ne moom la ñuy féetal cent wam ba mu làqoo et d'ailleurs lii wane ne nitu yàlla yi fu ñu toll dañ ñuy yéem moo waral ñu partager mois bu mel nii nga xam ne moom mooy mois de juin suñu maam Babacar ak suñu maam cher na nga partagé mois de mars waaye suñu maam El Hadji Malick ak suñu suñu sang suñu lépp ñi ngi partagé mois de juin bi mu nekk mois boo xamante ne si c'est un mois béni c'est un mois béni et c'est un mois béni te kenn rek moo tax mu toll dayo bi mu toll mooy sang bi ci sama càmmoñ c'est Maodo donc c'est Seydi Hadj si Sy qui nous accueille a-t-on oublié l'école coranique où il a fait ses premiers pas accompagné de la bénédiction de Seydi Babacar de Seydi Cheikh Ahmad Tijan Sy, de Sokhna Astou Kane, de Sokhna Sofiatou Dem. A-t-on oublié les chants de Boulel? A-t-on oublié le passage à Djirnda? A-t-on oublié Derklé à Dakar? A-t-on oublié les années de la femme? de la jeunesse, de l'enfant, de la mère. a t le fameux discours avec les crises de logique, de foi et de compétence C'est Malik jusqu'à présent. Certains sont toujours dans cette crise qu'ils n'ont pas voulu abandonner. Mais Sanjabod Boussel Gui ont décidé de tourner le dos à ces crises depuis 1993. A-t-on le pur A-t-on oublié Synergie A-t-on oublié Atara, les femmes dévouées pour la cause A-t-on oublié Moustachidine Junior Que faut-on des universités du Ramadan Que faut-on du Colisée de l'éveil Mais attention, avec tout cela, pourquoi des personnes ne seraient-ils pas jaloux C'est parce que dañ la amul moo tax. Wallaay ndeysaan Demba. Vous avez résumé en quelques mots je ne dirais même pas que vous, y êtes parvenu, parce que je crois bien qu'aucune personne, à part notre cher capitaine, n'y parviendra. Mais vous avez essayé, Demba, et on l'accepte, n'est-ce pas? ñu ngi nuyu di ziyaar suñu Khalifa Sall muy jiite délégation wu Yewwi Askan Wi ànd ak Moussa ak soxna Aida Mbodj ak Cheikh Tidiane Youm bileen dalal fii di ëttam di ak mboolem sang ak soxna yu baax yi ñu àndal yépp Demba Khalil dafa way ku xam sant te dëgg la ku xam dinga sant ndéem sax xam ko moom mii lu ñu jafe la ndax nekk na koo xamante ne suñu capitaine wax nañu ne ñun xamuñu ko moom moo ko xam waaye gannaaw moom mi bokk ci ñoom moo ñu wax ki mu doon ah ñu mën jàpp ne góor gu màgg a ngi nii góor gu tedd a ngi nii te loolu ku ko xam rekk daa nga sant ndax li tax demba ma taxaw fii li tax demba ñu saña a jàkkaarloog sang bii li tax demba ñu koy waxee fii te waxee ko feneen ci waawan ñu jox jigéen kàddu muy wax yàlla ak moom mii la kon nag ñun loolu ñu ngi koy sant te looloo gën a néew ci lim ñu defal kon Demba ñu bàyyi Khalil mu wayal ñu ku xam sant jërëjëf surtout le plus riche qui existe ak ban l'héritier ultime de tous les temps l'athlète spirituel le plus extraordinaire de l'histoire ñu tàcc ko bu baax a baax a baax mu ñëw sur scène waaw yëg naa lu root sama xol rotam nga noot sa xel mi ay lu ko moo ñàkk maas te di sens ndaw ñi xëy bëgg raas meññeefu Maodo maam as meññul garabu Yoff zeye oolu kiinap tuyu ajuwa bayi faas the best the true heir of the Cheikh Moustapha you were the you made Sabit and carried us in your noble mission this life has no meaning without you alongside kon yaa mursidal amiman may jéem te sax du ma ci yow benn fan xajul ci làkku wolof assalaamu aleykum wa rahmatullah sayidi wa moolaaya wa xabibi muhammadul mustafa si sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziyaar di la ñaanal yàlla gudd fan di nuyu suñu capitaine maam si Ahmed Tijani sëriñ bi fu sa njaboot nekk fu sa njaboot nekk moo xam muy liggéey wala muy jàng cër ba mu fa am ak daraja ba mu fa am gannaaw yàlla sa mbaax la ko mi kon nag mënuñu lu dul lekk di la delloo njukkal dama bëgg ñëpp ñu ànd delloo njukkal suñu sang bi ñëpp ñëpp laa bëgg delloo ko njukkal sans exception waaw ñëpp laa bëgg ñuy way ayyoo déglu ma tay ma way ma way góor gi ci suñu xool yi ayyoo ayyoo ñoo tay ñu way delloo njukkal suñu góor ayo oh, déglu leen ñoo tey ñu way ci kaw ñun al mustarsidin wal mustarsidat màggal Muhammadul Mustafa gàcce galama gàcce galama yaa ñu fekk ci géeju mbewte ngelawu ku ngëlëm te ëpp suñu xol yi saxaaru ba neex moor ñépp ci kaw yaa ñu fekk ci géeju mbewte du samiya di sànni lëndëm ngelawuk ngëlëm ëpp suñu xol yi saxara yaa te ñu sàmpu tey yal na la yàlla fay si Malik na ñëpp wax gàcce ngalama gàcce ngalama buur yàlla moo la jël def la suñu xol mu tollu sax ñun si defar nga jikko yi jagal nga ruux yi ñu suñu diine buur la jël def la suñu xol yi mu tollu sax ñun si defar nga jikko yi jagal nga ruux yi wala ci tey yal na la yàlla fay nun al mustarshidin loxo Muhammadul Mustafa gàcce ngaalama aslum loxo yi loxo beaucoup. Ah, ah, ah, ko sopp ku ko sopp defal nii Cheikh Moustapha Sy yaay gaynde diine man ñee la wóolu dégg la mbiri si yaayanu yen bi te mat nga ndaw li billaahi suñu góor gi moo am ngor yaay gaynde diine man ñee la wóolu dégg la te mat nga ndaw li billaahi suñu góor gi moo am ngor yaa yaatal doolu mbay yal na la Yàlla fay Muhammadul Mustafa gàcce ngaalama gàcce ngaalama na Yàlla sàmmal ñu suñu góor gi te ate mootam mootal yéene te yokk yool ya bégal ko noon ya yàlla sàmmal ñu suñu góor gi te aar njabootam moo tali yokku ndam ya bégal sa ngam ya fu ñëpp ba dundal wéral yal na la yàlla fay tout le monde al mustarshidin wal mustarshidat ñu ngi dem Muhammadul Mustafa gàcce ngalaama gàcce ngalaama dégg gàcce ngalaama gàcce ngalaama tout le monde ñi nekk ci biti gàcce ngalaama gàcce ngalaama encore gàcce ngalaama Eva Azum si yaa ñu doy yow lañu am yaay suñu wéeruwaay Cheikh Moustapha Sy kenn nga si ñun suñu xol lañu la def si yaa ñu doy yow lañu am yaay suñu wéeruwaay Cheikh Moustapha Sy kenn nga si ñun suñu xol lañu la def loxo yi si yaa ñu doy yow lañu am yaay suñu wéeruwaay Cheikh Moustapha Sy kenn nga si ñun suñu xol lañu la def loxo si yaa ñu doy yow lañu am yaay suñu Cheikh Moustapha Sy kenn nga si ñun suñu xol lañu la def eh yaa Habibi siyaa ñu doy yaa Mawlaaya siyaa ñu doy Cheikh Moustapha Sy siyaa ñu doy Moustapha al Maktoum siyaa ñu doy yaa Habibi siyaa ñu doy yaa Mawlaaya siyaa ñu doy Cheikh Moustapha Sy Moustapha al Maktoum siyaa ñu doy ñu am si xol lañu yaa ñu doy yow lañu am yaay suñu wéeruwaay si Moustapha si nga si ñun suñu xol lañu la def si Malick yàlla na yàlla sàmm la yàlla aar la yàlla bu la kenn rëcc yàlla bu ñu jumba mooy la yàlla nga fekkee cinquième édition sargal ñu ànd ko ak suñu bàjjen fatiment ak suñu yaay ak docteur May ñu jaajëfal ko bu baax a baax a baax di ñaan ngeen mayaat ko loxo bu baax a baax ci prestation bi mu ñu defal ci suñu sang bi ne ko si ñu doy yow lañu am te yaay suñu weeruwaay yal na yàlla nangu ñaan yépp incha allah dañuy daal di dalal ndaanaan ndaanaan boo xam ne miin nañ ko ci programme Moustarchidine yi muy koo xam ne baaxee nañu woon way bu ñu bu ñuy fàttaleeku ba léegi way bu ñuy bége ba léegi mu ñëw tey nag ne ñu nañ ko wax kan moo ko doy ndax dafa ñëw mu ne laaj leen ma ki ma doy tey mu wax ñu ku mu ki ko doy est-ce que xam ngeen ki may wax est-ce que xam ngeen ki may wax xam ngeen ko baaxee leen ma tur bi leen ma tur bi kon ñu tàcc bu baax a baax Seyba Diatta mu ñëw rejoindre ñu sur scène fas yéene ñoo bàkkal suñu sang bi ñu amul kudul moom waaye en attendant muy ñëw jotaay bi li ñuy wax naan dafa alaa daw waaye jotaay bi dafa alaa daw ndax képp ku baax képp ku bëgg lu baax teewee na bësu tey bii ñuy nuyu suñu mbokku Pape Alé Niang waaw ngeen may ko loxo di ko ziyaar di ko massawu coono bu baax te di ko dalal jàmm ci soirée sargal bi di nuyu suñu maman mère Binta Faye suñu maam booy di ko ziyaar di kontaan lool ci cofeel bi nga am ci suñu sang bi ndax ku ko bëgg bëgg nañ ko ku ko sopp sopp nañ la ñuy nuyu également soxna soxna Umu Saar bu soxna Fati soxna Kiné Fatou Sy bu suñu maam maam Cheikh Ahmed Tijani Sy Al Maktoum di ko dalal di ko ziyaar moom ak mboolem sang ak soxna yu baax ñi mu àndal di nuyu également suñu mbokk soxna astukan bu 2 di ko ziyaar di ko masawu coono ñuy nuyu aussi suñu mbokk Mansour Diop bu Zik FM wala Sen TV di ko ziyaar di ko baalu àq te di ko masawu coono kon daa mel ne suñu sang yi pare nañ ñu mayaat leen loxo bu baax ñu ñëw bàkkal ñu suñu góor gi waaw xam nga musiciens yi moom dañu xaw a bëri li ñuy wax euh, ay mbóot yaakaar naa noonu laa ko mën a waxee lu ci mel ni lii may gis man xaw ma leget la xaw ma yomb la man daal je ne <laughs> comprends pas mais en tout cas li ñuy wax ne symphonie la boo xamante ne sa nu ma ko mën a tuddee sang bi honte ah, nee nañu honte la tudd maanaam pour wone ne combien l'homme est gratifié à bant ak fil ak ay weñ gu mën ci def loo xamante ne ça exalte le corps et réveille l'esprit te loolu yëpp waaj bu metti bi yëpp kenn moo ko waral muy suñu sang di suñu lépp est-ce que d'accord ngeen waa léegi balaa chey ba di ñëw ndax moom dafa ne laaj leen ma ki ma doy léegi man xaaral ma laajte man tamit ki ma doy duma ko laajte sax parce que xam naa ni yéen xam ngeen ni man xam naa ni yéen xam ngeen ni xam naa ni xam naa ni man xam naa ko <laughs> mais avant ñuy egg foofu damay def benn affirmation te yaakaar naa di ngeen ci d'accord bu weesoo suñu sang maam Cheikh Capitaine man maa ci topp maa ko gën a sopp ah li ma dégg c'est pas uniforme ma ne bu weesoo suñu sang maam Cheikh capitaine ak mboolem sang ak soxna yu baax yi mu àndal man maa ko gën sopp man waa côté bii yaakaar naa ne ñoom soppuñu ma ñoom ci seen wàll boobu soppuñu ma xaaral ma xool fii dama ne bu weesoo maam Cheikh capitaine mii toog moom mi ci felt bi moom mu ci sañse yu rafet yi macha allah allahumma la aduru bu weesoo moom ak sangu yu baax yi mu àndal man maa ko gën sopp mais ils sont méchants dotés d'une méchanceté je ne comprends pas ma ne man maa ko gën sopp kan moo ko gën a sopp eh waay ah nañ d'accord loolu nañ d'accord ne moom bu jiitoo sang yi topp ci maa ci topp ngeen topp ci kon nañ bàyyi Shayba wayal ñu ki ñu am ñun ñëpp ñu woo suñ mbokk Shayba jaata mu ñëw rejoindre ñu sur seen moom de fa daanak sax xam naa ni man temps yi sama baat bi entraîné woon naa ko tuuti dama leen koy yégal rek parce que doon naa jéem a jàng waay après dem naa géej yuuxu ba sama baat bi xar ma arrêté mais bu xefee man ma way way bi après yéen ngeen awu est-ce que d'accord ngeen ma way way bi ngeen awu bàyyi ma jox leen ngeen débuté man ma yegg si wax leen commencé du ngeen wax commencement way bi ah ñu ngi nuyu suñu père et yi toog fii ci kanam taaru loolu macha allah di ñaan ngeen may leen loxo kon Seyba bismillah mu ñëw woyal ñu suñu góor gi Cheikh Seydou Mouhamadul Moustapha si ngeen may ko loxo bu baax a baax a baax ngeen may ko loxo bu baax sa baay sabaay ñaanal na la sa ñaanal sabaay sabaay na la doomu gaynde du jur ñombar sang bi jaaraama Mustafa jaaraama sangi bi jaarama Mustafa jaarama sangi bi jaarama jaarama si demba mag ñaang lay ñaanal jaarama si demba soxna yaang lay ñaanal jaarama si demba kade yaang lay ñaanal mbokk yu néew na lool sa waxtu de si loo ci nooyi def nga ko yu maam sa jëf ji day gën a law waaju sànq gindi nga ko ndax bu bi nee na mba leer ga dem na ñëpp sërëx baa yow jirim yi di jooy lañu mënoon keneen mënu ko buñ ne kuy samaam ñu ne maam Babakaray samaam tabaaraka rabbul arshi anshi bihi malikin laqad xaaba najmul xayri bal samsu saalikin xalifatu qutbil awliya imaamuna abu bakrin man kaana yaxmi li naasikin koo koy samaam ñu ngi di la ndokkeel di la ñaanal nga ñaanal ñu baat bi wér àdd dépp dégg ñu ci barke yonent bi ngeen ñaanal ma góor ku sopp Sëriñ Fall na taxaw tabarakallah sun xaaliqin tey ñépp am émotion waaye si ñu ngi lay ziar di la ndokkeel di ziar sunu yaay di ziar soxna Fatima di ziar maam Babacar di ziar sang yi fi toog yépp fa tabarakallahu bés bi rëy na yéene moo ëpp waaye nag mënuñu woy leneen lu dul lii si ñu ngi jéggalu bu baax ñu laaj ba xam ndax yéen bég ngeen walla bëggu leen bëgg nañu su fekkee bëgg ngeen ngeen tàcc ma gis sama xol sedd yéen itam bëgg ngeen kon alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilah ñu ñaan ngeen tàccuwaatal ñu bu baax a baax suñu maman Cheyba di ñaan yàlla mu wéral baat bi euh, ba muy yàgg di ñu mën a kañal suñu góor gi suñu góor gi Seydi Mouhamadul Moustapha si